waaw kon Serigne Mbacké Sylla mën ngaa ñëw ñi ñu war a décorer nga xam ne moom lañ joxoon mu coordonné leen mu bokk ci candidat yi nga xam dañoo war a décorer suñ Xaadim moo suñ Abdou mi ngi fi kon ñu may jury bi ñu concerté wu xool seen résultat nu muy demee Serigne Mbacké Sylla bismillah ci bu gaaw rek ñu décorer candidat yi ndax jotaay bi day mel ni fi mu ne mat na daal waaw incha allahu kon ñi ñi décorer sëñ bi ngeen bàyyi xel kii rek ku ñu woo rek ngeen indil ko kadoom bu soobee yàlla sëñ Mbàkke si la bu gaawee rek gaaw de mi ngi nii mi waaw sëñ bismillah bu gaawee rek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 wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin almurtada wa ala alihi wa saxabatihi sawi tamkin wa rida wa man tabiahum bi ixsaanin ila yawmi din noo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara di leen ndokkeel di leen jox seenu yéeguwaay fedd li baax sunu ko ak sunu cofeel ci yéen mu mel nañ njëkkante ak waxtu wi insha allahu taala di jaajëfal lu baax sunu mbokk Sëriñ Basiiru Géey ñaan lu baax suñu boroom sàmm ko kàttanal ko barkeb alxuraanul karim nuyu baax sunu sampe yi na àndal jógee bawal ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu baax di leen siyaar kon ki ni njëkkee ci tur yi nga xam ne ñoom lañ fi jotaa lim mooy soxna Ndate Cissé soxna Ndate waaw kon sëriñ Ousmane Gaye na ñëw jox ko cadeau bi incha allah soxna Ndate Cissé. soxna Ndate Cissé mi ngi jànge ci daara yi Daarul Maarif 2022 moo jëloon troisième place ci Grand Prix ko Sanico ba tey moo mooy ki jëloon deuxième place ci Grand Prix Cheikhul Khadim ba tey 2022 mu nekk champion des mondes concours international de Dubaï kooku mooy soxna Ndate Cissé Serigne Cheikhouna Cissé mooy Serigne daaraam yal na yàlla sàmm ko te yokk ko wér. jërëjëf barkeb alxuraanul karim kon Serigne Ousmane Gueye moo koy jox cadeau bi ñu ngi koy sargal di ko encouragé mu gën a jàpp alxuraan incha allah acca tàccu leen mbokk yi takbiir mbokk mi ci ciy teg mooy Serigne Alxaaji Seex Dia. sëriñ Alaaji Cheikh Dia ñu ngi sàkku ci sëriñ Omar Gueye Badar mu ñëw fekk ko fii jox ko bi incha allah sëriñ Omar Gueye Badar. sëriñ Omar Gueye Badar. moom sëriñ Alaaji Cheikh Dia mi ngi jàng ci daara yi sëriñ Alaaji Cheikh Dia. 2022 moo jël deuxième place Grand Prix ko Sanico 2022 mu bokk ci concours international Arabie Saoudite 2022 mu nekk champion des mondes concours international Dubaï 2023 mun bokk ci concours international leen ko fële ci réewum Kenya bu yëgul rek fële ca Bawal dajale nan mbooleem champion yu nekk ci Bawal ngir tànn ci kan ci ñoom ñoo war a teewal Sénégal ci concours jërëjëf sëñ ko bi ñuy def moom mii mu jël ndam la insha allahu taala sëriñ Ibrahima Dia ku ci topp mooy sëriñ daaram yàlla na yàlla sàmm ko te yokk ko ki ci topp moo bi jotaay bi tey ci alxuraanul karim yàgg doon champion di soxna nday jaara ngom soxna nday jaara ngom sëriñ euh, sëriñ xaadim soxna nday jaara ngom di jànge ci daara yi Seex Muhammadul Moustapha Mbacke Serigne Khadim mu Serigne Abdoul Karim. moom nag mu ñëw joxal ñu ko trophée bi incha moo jël xasida door gi nga xam ne. Serigne Khadim Mbacké ibn Cheikh Alhaji moo ko organisé woon 2016 mu nekk champion Sénégal Grand Prix ko Grand Prix de première place naka noonu itam 2016 mu bokk ci première édition concours international Dubaï 2017 mu dem Malaisie concours international jël troisième place mook Mouhamadou Moutaba Diallo ñoo ngi koy ndokkeel lu baax di ko ziyaar waa juróom bu góor mooy Serigne Moustapha Ngom hafizahullah mooy ab Serigne daara maanaam moo ko jàngal ñoo ngi koy ndokkeel baax di ko siyaar di ndokkeel baax itam sunu waajur wa soxna Kumba Ndong yal na yàlla sàmm leen. jërëjëf jërëjëf. soxna Ndeye Diarra Ngom macha allah. ki ñu ci toppal mooy sëriñ Mohamed Gaye waaw Mohamed Gaye nag ñëpp xam ko. champion du monde ci alquran fële ca arabi saudiya ñi ngi sàkku ci Serigne Mohamed Mohamed Gaye mi ngi jànge ci daara yi Mohamed Serigne Makhtar Ndiaye wala boog ibnu Cheikh Abdou Samad Mbacké mu ñëw jox ko neexalam insha allah bismillah concours ba nga xam ne koo koy Mohamed Gaye ñoo ko amaloon moom moo jël première ba balee concours bi ñu tuddee woon jaay sa Cheikh Mahamadul Fadal Mohamed Gaye moo jël première bi ñuy def concours grand prix ko bi tam ci régional baa département ba communal ba yëpp moo jël première ba concours national grand prix Cheikhul Khadim tam mu ñëw jël deuxième place bi. macha allah 2023 concours international Arabie Saoudite nga xam ne juróomi farxu la woon mu bokkoon ca ñeenteel farxu ba moom moo jël première ba. Serigne Makhtar Ndiaye mooy Serigne yàlla na yàlla sàmm ko te yokk ko wér. macha allah kon na ko ñëpp may nopp mu jàng ñetti aaya ci alquranul karim bismillah.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 ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ما شاء الله صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر تكبير ما شاء الله jërëjëf mbokk mi jiiteeg mooy soxna Zeynabu Ngom soxna Zeynabu Ngom soxna Zeynabu Ngom Serigne Soori mu ñëw jox ko ci de Diourbel. monsieur Soori concours international Dubaï. 2022 muy champion des Grand Prix Sénico wala boog Grand Prix Cheikhou Ahmadou Bamba ca première édition ba. mu jël deuxième place ci concours international des Malaisie. waajuram bu góor sëriñ Serigne Moustapha Ngom laa mooy Serigne daaraam di rakk ci soxna Ndey Jaara Ngom mi nga xam ne moo taxawal fi léegi ñoom ñaar ñoo bokk lépp yal na yàlla sàmm leen te barke leen di ndokkee lu baax sunu waajur Serigne Moustapha Ngom ci liggéey bu am solo boobu jërëjëf Ndey Zeynabu jërëjëf monsieur Kaba incha allah yal na yàlla barkeel jërëjëf Ndey Zeynabu ki ci topp mooy soxna nday busa jatara soxna nday busa jatara di jànge ci daara yi masaalikul jinaan concours national grand prix Sanico ñu ngi sàkku ci sëriñ communal baag sëriñ Jili Njaay régional baag lépp moom moo jëloon première Jili Jóob ñu dem département ba mu dëggalaat boppam jël première mu ñëw joxal ñu ko neexal bi incha allah ñu dem régional Mohamed Gueye jël première mu jël deuxième mbooleem soxna yi war a bokk ci concours national bi ñu jëm itam moom mooy ki ci jiitu takbir allahu akbar mu dem Dubaay ci concours international jël sixième place sixième place boo xam ne si nii troisième ak quatrième ak yëpp dañoo tolloo macha allah Serigne Mortala mooy ki nga xam ne moo koy taxaw yal na yàlla sàmm ko te yokk ko soxna ndey bu sa jatara jërëjëf jatara jërëjëf sëñ jiili yal na yàlla barkeel ci barke alxuraan aca mbàkke ku ci topp ki ñu ci topp mooy soxna nday xadi daraame soxna may daraame ñi ngi sàkku ci Mohamed Tine soxna nday xadi daraame Mohamed Tine na jox ko trophée bi insha allah sëñ Mohamed indi leen moom itam jaaroon na fi di jàng ci daara yi Mariam Abnata Imran di daara joo xam ne sunu waajur soxna Mbayang Siise mooy ki sosoon yal na yàlla dolli ko leer ak njëggal ca barsaqul muhammadiya 2019 concours national grand prix Sanikou mu def jéego yu am solo lool département bi ak communal ba ak national bi lépp mu jël première place ba dëggal boppam 2019 mooy ki nekk champion de Sénégal grand prix Sanikou ba tey 2019 mu jël sixième place ca grand prix Sanikou wala boog concours concours international de Dubaï kon ñoo ngi koy ndokkeel lu baax di ko ñaanal baax suñu borom defal ko tawfeex tey siir moom nag moo ngi bàyyi ko Louga soxna Ndeye Khady Daraam jërëjëf macha allah yal na yàlla barke jërëjëf moo mettin tàccu leen waay kan moo dem mbokk mi ci topp mooy Serigne Habibou Diop Serigne Habibou Diop nag mbokk yi lii dal sunu mbokk Mouhamed Tine mën naa feeñ ci moom Mouhamed Tine sunu borom ay bëtam la buur waaye Serigne Habib Diop mi aw làmmiñam la sunu borom téye aw làmmiñam nga xam ne wax waaye jàng na alxuraanul karim ba mokkal ko beqi ko bind kaamil yor daaram di jàngale moom mbokk mi ma ne sëriñ Abiba Jóob mii aw làmmiñam la suñu borom dee maanaam mënut a wax waaye li muy ñàkk a ñàkk a wax lépp dem na ca daara ja jàng dal baa siin miim ba ni mu yeggale wàcci wàccaat beqi beqi waat bind kaamil baqar ba naas te xoolu ko jóge fa ber daaraam di jàngale di jàngal ay muumu ñu mel ni moom mënut wax macha allah classe bi jànga ngi toll ci fanweeri nit ak juróom bii nag man Bassirou Gueye mënu wax. ñu ngi sàkku ci sëriñ Abdou Khadir Gueye Badar. kon yàlla yàlla jox ko trophée bi incha allah sëñ Abdou Khadir Badar. sëñ Jili sëñ Jili sëñ Abdou Khadir Gueye Badar. sëñ Habib mii bind na kaamil te yàlla def na wax sax mënu ko loolu lu yéeme la fii la am ci senegal macha allah tàccu leen ko mbokk yi tàccu leen bu baax tàccu leen ngir yàlla ak alquran. jërëjëf jërëjëf sëñ Habib jërëjëf sëriñ Abdou Khadir Gueye Badar yàlla na yàlla barkeel ci barke alquran macha allah jërëjëf sañ Mbacke Sylla yow tamit def nga ci yitte ju rëy rëy rëy rëy barke jërëjëf jërëjëf sëñ Mbacke. aca kon kon xam naa jury yi ñu ngi ci biir di diisoo ngir xam kan mooy yóbbu 2 millions yi incha allah ak kan moo fiy jëlee un million ak kan moo fiy yóbbu mille di xamle tamit nit ñi bokk ñëpp kenn ko ci nekk danañ ko yeewee cent mille francs ngir yàlla ak alquranul karim kon mbokk yi tàccu leen ñëpp ñi nga xam ne bokkoon nañ ci concours bi ngir yàlla ak alquran di leen xamal ni nag xol yi sedd na lool wallaahi wallaahi mbokk yi li lii lu yéeme la ñu baree bari dañoo foogoon ne réseaux sociaux yi caaxaan rek moo ko tax a jóg tey mbooloo mii li ko fi dajale lépp mën nañ ni réseaux sociaux moo ko waral kon am na njariñ nag kon nag kenn ku ci nekk na nga am fullay la nga cay xool doon lu mat a xool di ca xool loo xam ne kenn du la ca fekk ba yedd la ca mbokk yi daal kontaan naa ci yéen bu baax a baax a baax man nag mënu maa wax tey waaye daal sama xol sedd na lool maa ngi sant sénégalais yépp ndax de damay faral di wax ni lii daanaka taxawaay bi ci am ba lii mën a am du kenn ñu dul sénégalais yi keroog ba ma defee vidéo daan leen mbir mi kat nos naa ko ba noppi fexe naa tamit dugg ci yenn entreprise yi ngir wut ñi ngir ñu jàppale ma ci mbir mi sponsorisé ko waaye awma ci benn réponse keroog la sénégalais yi jagal bis bi bari na nag ñoo xam ne ñu ngi leen di woowee xaw mi te fekk ñooy azamuhum te loolu yéen ñi jàng alquran xam ngeen ko bari na ci yonent yi dangay gis ña bari daraja ca ñoom ña ñuy tuddee borom daraja ngir alal ya dañ naan leen ndax dañ leen di gëm te ñi leen topp ñu gën a néew doole lañ ci ci xeet wi waaye ñooñu la ñu àndal tey ba lépp lu ñu bëgg a taxawal ci lislaam ñu taxaw ko kon nag maa ngi sàkku ngeen gën maa jàppale ngir li ma bëgg a liggéeyal yàlla ak alxuraanul karim ma def ko ngir yàlla yonent bi sallallahu alayhi ba mu ñi ko njëkka topp ñëpp xam nañ ko mooy ña ñu gën a jàpp ni ñoo gën a ñàkk solo ca xeet wa ñoo ko topp waaye fa ñu mujjee ña ñu jàppoon ñi ñu xeebu lañ yàlla dimbali na leen ngir lan jàpp guñ jàppoon alxuraan kon nag mbokk yi maa ngi sàkk ñëpp rawatina sama mbokki donga yi génn ci daara ji ñu gën a jàpp alquranul karim ndax alquran amul lu mënut maa ngi jéggalu baax a baax ndax mëneew ma kàddu yi man li ma man moom lu yomb la asalaamaaleykum mbokk yi tey ñu ngi toog ak diw sàngam mu doon ku yéeme ci alquranul karim ma laaj ko ci alquran mu tontu yaakaar naa loolu rek ngeen ma xamee te loolu moo def liggéey ba mu yegg si fii kon jërë ngeen jëf macha allah kon ñu xaar yi ñu ñëw feeñal kan nga xam ni mooy kii war a yóbbu 2 millions yi mu doon lu jafee atte nag te mbokk yi di leen wax ni yéen ñi jàng alxuraan yëpp dégg ngeen laaj fi yi fi rot laaju yéeme la ci alxuraanul karim moo tax ñi nga xam ni teew nañ fi amul kenn koo xam ne dérémilité na pour bokk ci ñuy gañe waaye nag noonu la jongante demee ñii dañuy gañe ñeneen ñi daal cay topp rek lii nag moom xam naa ne ñiy seetaan ñëpp xam nañ ne dana naqaree lijjanti lool waaye nag ñoo xam ne daal faaw rek ñu àtte ko faw ñu àtte ko kon daal lépp luñ ci dogal rek ñu xam ni loolu mooy dogal bi jib ñëpp ànd cee xol bu sedd ak xol bu féex ñu xam ne l'islam moo gañee ñu xam ne alxuraan moo gañee bu fi kenn jóge ak ñag-ñagu xol ñu xam ne daal lu mën a am alxuraan rek mooy jigee kon nag mbokk yi takbiir allahu akbar waa mbokk yi di xam xamle tamit ni sunu mbokk mi doon annoncé ñi nga xam ne ñoom lañ doon jox trophée yi ñu naan ko Mbàkke la téere bii moo ko defar moom ci boppam moo ko bind ci ci ci loxoom téere bi tamit mi ngi ko tuddee jaamiul bayaan fii mutashaabihatil quraan nga xam ne dafa dajale li ñu naan runge yi ci alquran moom la dajale fii ci téere bi te mbokki li ci gën a yéeme bi mu ko defaree ba noppi da koo maye gratuitement nga xam ne da koo def waqf lillaahi ngir mu jariñ donga yëpp ko tamit bëgg naa ñëpp daal di koy tàccu moom Mbàkke Sylla ngir yàlla ak alquran karim kon ñu ngi jéggalu kii toog nii badar ga ma bawoo nga xam ne tey lu nekk ci man tey ak ëllëg ñoom la ma leen profité di leen sant Serigne Cheikhouna Gueye Badar di sant rakkam yi fi teew yëpp su ma ci waxee sëñ Jili Gueye Badar ak Serigne Salih Gueye Badar ñu yóbbaale ñëpp ak sama mbokk yu jigéen yii ma jiital ci soxna Ami Gueye mi nga xamante ni ku bokk Badar rek amoo ci mënoo wax ci moom dara ñi ko xam na xam nañ loolu waaye yéen ñi ko xamut ku baax la àddunaam bépp mi ngi ko see seeyal ci ci bëgg yàlla ak topp ko sunu soxna yi nga xam ne ñooy sama waajur ñu ngi nii toog ci kanam man moom yàlla dafa def ni awma benn waajur ñaar laa am te ñu ngi nii toog ngeen gis muy soxna Oumy Ndiaye ak soxna Ramatullahi Diop nga xam ne ñoo ma meññi badar googu ma jógee nag sëñ Omar Gueye mii moo fi teewee comme xalifa badar